asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu waa daayira xidmatul xadim ñoo ngi leen di jaare bu baax a baax kenn ku nekk ci turam ak santam di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha suñu boroom yàggal ko fi lool te wéral ko ba lii mu yéenee liggéeyal Serigne Touba mu def ci kaw njortu lu kawee murit yëpp ak jullit yëpp te ñu ànd kook moom euh, di sant Serigne Touba bu baax a baax a baax man la maam Thierno Dioum porte parole xidmatul xadim ci ndigalul jëwriñ yi ñu yëkkati woon seen kàddu am ay kàddu ñu ma yónni ci mbooloo mi ak képp koo xam ne yaa ngi ci biir xidmatul xadim wala ngay dégg xidmatul xadim fépp foo man nekk ci àdduna di ñaan jëf ji ñu koy tey di ko jëbal sëriñ Touba te di ko jëbal murit yëpp yool buñ ci sëriñ Touba fayee yàlla nañ ko bokk bokk ak mboolem murit bi nekk ci kaw suuf liggéey bi nag ab daayira la boo xamante ne dañoo nekk fii ci Touba doon ak kuréel goo xam ci menuiserie métallique la ñuy yëngu seen ab yëngu mi ngi aju ci weñ gu ñuul ak weñ gu weex ñu koy wax inox ak bañ gi weex gi ci la ñu koy wax aluminium ñoom ñoo booloo woon toog ba yëg ne kenn ku ci nekk Serigne Touba defal na la loo xam ne ci dëkk bi teraanga joo xam ne mënoo ko message ci sa bopp ñu dajaloo ñun ñëpp am yëg-yëg danañ delloo Serigne bi njukkal niñ koy delloo njukkal nag mooy ñu fexe ba doon jumtuwaayu sëriñ bi ci métier mii nga xam ne moom lañ suñu borom taw féexal lépp lu ñu xool ba xam ne lii Serigne Touba su fi nekkoon. ku ko soxla tey su ma am nga jëm mu defal ko moo ko war a defar ñu teg suñu bët bu ñu ci amee ndigalu ki fi nekkal Serigne Touba ñu def ko bi ñu demee jaayante ji ak Cheikh Mouhamadul Mountakha Poroxaan fekk ko fa leeral ko pas-pas boobu mu nangal ñu ko tudde ñu xidmatul xadim loolu moo sabab maanaam kuréel gi kuréel gi nag fi muy dox mooy ndigalu sëriñ bi comme niñ ko waxee rek suñu tàmbali bi liggéey ñu ngi ko tàmbalee woon ci jumaay sëñ Touba ja buntu ya nga xam ne Cheikh Abdoul Ahad defoon na ko fa ñu ko ñu ñu yeesalaat ko ndax ndax entretien moo ñu tax a jóg entretien liggéey sëñ Tuubaa yi ndax yoonu murit li fi mën a def defar ko kon léeg-léeg waaye day laaj ay yeesal yeesal yooyu nag bi ñu tàmbalee yeesal jumaa ja ba noppi kër sëñ Tuubaa gi ci gaaru dakaar Dakar muy gii ñu nekk nii ak ci jumaa ja bi màggal gi jub ñu yeesal ko ne léegi kon kat nañ dem daaray eh, bàq ya xool bunt ba fa nekk ndax moom it bu fi fekkente ne sëriñ bi eh, si sëriñ bi la aju muy jëmmi sëñ Tuubaa te murit yëpp bokk ko bañ fa demee xool war koo defar ñu xool ne buntu ba neexuta saafarawaat ñu sa waxtaan ci biir mbooloo mi laajaat ci ndigal ñu am ndigal soppi ko muy bunti bàqe ba fa nekk yaakaar naa ku dem bàqe ya gis nga buntu ba na mel bañ fa jugee ñu demaat daaray kaamil xool maanaam ba nga xamante ne nii moom mooy téere fa ñu nekk mu mel ni léeg-léeg dañuy am gàllankoor ci weeru toj ndax jamono yooyu ay napp ko fa nekkoon napp ko nag bañ ko fay def jamono yooyu looloo amoon bañ amee ndigalul saytuwaat ko bi ñu ñëwee waxtaanaat suñu biir ñu ne kat kon léegi nañ ko soppi def lépp armi ñoom nga xam ne lépp day perne biñ ci demee laajaat ci ndigal waaw ndigal tey bi daaray kaamil moo ko waral daaray kaamil quatre-vingt-cinq euh, fenêtre lañ fa am waa quatre-vingt-cinq loolu xam naa dañuy bàyyi après sëñ maas Mbow bu ñëwee yor organisateur dina leeral yooyu incha allahu rabbi kon daal mbooloo mi Xidmatul Xadim daal mi ngi noonu dafa jóg ngir liggéeyal sëñ Touba kuréel gi xam naa ci at lay toll waaw yaakaar naa ci at lay toll ndax màggal gii ñu weesu seen ñu soog a tàmbali ab liggéey maam at mi sax xam naa matagul waaye at mi bu dox gi dëggal ci at lay toll moom waaw budget bi daal bi ñu ko évalué ci 5 millions la tolloon waaye nag liggéey sëñ bi moom da ngay rek waaye xamoo fu muy yem waaw waaye fu mu mën di yem moom li moom duñ tegg suñu loxo wala tegg suñu tànk sa liggéey bi eggut bu doon ba 100 millions it dinañ ko eggale hmm? lan la ñuy waaw fond bi moom ñun amuñu budget amuñu lu ñuy denc fenn waaye dañuy def bu ñu xoolee bëgg duñu liggéey xool ne lii warees na liggéey ñu waxtaan suñu biir xool ni métal gi toll ñu sasoo suñu biir ne kenn ku na joxe nangam ñu jaayante defar ko noonu la liggéey waaye amul kees wala fond wala benn aide bu jóge fenn dugg ci biir liggéey bi lu songaat waaw loolu moom ñu bi song loolu ñu song loolu ndax dañu naan lii la ñuy song ñu toll daal sëriñ bee ñu fi indi man la seriñ Modou Ndiaye eh, président actif daayira Xidmatul Xadim bi lëkkale mbooleem ouvrier yi na ci biir Touba eh, di ànd liggéey Serigne Touba. jarat ci salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu waa daayira Xidmatul Xadim bépp maa ngi leen di ziare di leen jox seen wàccaay man la sëñ moodu njaay eh, président actif daayira Xidmatul Xadim bi lëkkale mbooleem ouvrier yi xam ne ñoo bootu. ci liggéeyam sëñ Touba bi ci e, ci Touba. waaw tey bokk na ci li nga xam ne waraloon na jataay bi mooy ay ndaw yi dajaloo woon coog ba xam ne jot nañu liggéey sëriñ Touba ci dëkk bi ci li leen xam ne moom la leen yàlla wërsëgale muy wàllu métier bi ñu xam ne e, sëriñ bi defal nañu ñu ay tawféex yoo xam ne nii e, képp ku ne ci Touba di liggéey aluminium ak inoxo métallique amel nga sëriñ bi njukkal te xam ne liggéeyu sëriñ bi sëñ bi da ko daañu déggaane ci àll bi di ko xool ay mbokk yi fasantikoo ñëw daan ko def te xam ne loolu nekkul lu yel loo xam ne ñun ñi ndawi dëkk bi mën nañ ko ñuy bàyyi suñu maram naran di ko def ñu dem ba ba dajaloo ne xam ne jërëtut kat bu sëriñ bi amee benn xéwamteef boo xam ci dëkk bi la jëm ñu ñuy tegg di dem ñu dajaloo suñu biir xalaat ne kat jot na saa yu màggal Tuubaa jub seetee ñu ouvrier yi dëkk bi ñu dajale suñu ñax muy suñu dërëm ak lu mu ma doon li nga xam ne mooy bëgg-bëggu sëriñ bi ci entretien yi nga xam ne sëñ bi saa yu màggal jub seetee mi ngi naan kat na ngeen ma santale say yàlla ci bis bi looloo war la ñu dajale mbooloo mi lëkkale leen ba saa yu màggal jub seetee ñu mën a entretien kër sëñ yi nga xam ne moo taxawal waaw liggéeyu tey bi nag bokkuñ ji li ko tax a jóg mooy yeesalaat daare kaamil ñoo xam ne daare kaamil euh, makkaan la moo xam ne nii sëñ Tuubaa da koo fonkoon lool Cheikh Abdou laat euh, gën koo fonkaat mu nekk denc mag boo xam ne nii euh, dañoo toog ba xam ne jot na la fa nekk ñu yeesalaat ko yeesal gi nag dafa fekk ay fenêtre moo fa nekkoon yoo xam ne ay nàkko la ak ay verre yoo xam ne day deñ mu ay poussière ak yooyu ñu dem ba am yëg ne yooyu nag ko jamono da koo romb ndax jamono seen laat loon ba tey ñu waxtaan suñ biir xool ne soppi ko mooy li ndax it kuy defal lu gën da ngay xool la gën nga defal ko ko waral ñu amoon yéene xool fenêtre yi xam ne moo nekk daade kaamil muy ay nakko ñu soppi ko def ko fenêtre euh, ci aluminium bi nga xam ne waxtaan nañ ceeg mbooloo mi ba déggoo ci ba am ndigalu defar ko moo waraloon tey liggéey bi ngeen seen tey ñu taxaw di ko si ci loolu waral sabab daade kaamil waa saal yi ñu war a jël nag yàppan naa su ma jumul war naa mati ay sept saal sept saal la sept saal yëpp nag boo xoolee bilan fenêtre yi nga xam ne moo jëm ci saal yëpp mi ngi toll ci quatre-vingt-cinq fenêtre ak ay placard yoo xam ne ci lañ def ay exposition yoo xam ne moo ne ci biir set fenêtre yëpp set euh, salle yëpp moom seen fenêtre moom yàlla dogal na lépp yem na ak seen i verre ak seen moustiquaire lépp yem na moom waaw corps de métier nekk moom euh, loolu xam naa bu ci duggee dinaa ko waxtaan ak euh, président organisateur bi ku mel ne Mass Mbow loolu moom yàpp naa ne moom lañ ko chargé woon mu organiser mbooloo mi ni ñuy liggéey ak taxawaay bi moom it ñu ngi ko ciy jaajëfal lu baax ci organisation bi nga xam ne taxawee na ko tey ci liggéey bi ba lépp yem te kenn amul benn loolu it day daari bi mooy kenn ku ne li nga xam mooy sa lañ la koy chargé bàyyi la ko kon moom ñu ngi koy jaajëfal ci taxawaay bi ak initiative bi nga xam ne temps bi mu am sonn ci liggéey bi ba liggéey bi toll fii ñoo ngi ko baax a baax li waxaat daal mooy euh, liggéey bi daal moo ngi nii ci sëriñ bi lañuy tàmbale sëriñ bi lañuy yem liggéey bi nga xam ne gannaaw bu ñu sëriñ Muntaxa nangulee liggéey bi ba déggoo xel ma do li nga xam ne moom lañ njëkk a réagir ci Touba mooy jumaay Touba ji bunt yi dafa nekkoon bunt yoo xam dafa xaw na naqari ba ñi koy tëj di ci am ay jafe-jafe waaye bi ko daayira bi yëgee taxaw ci taxawaay bu am solo boo xam ne nii euh, dajale mbooloo mi dem fa defaraat bunt yi ba lépp jaaraat yoon ak yeneen i sosowaan yi nga xam ne ci biir jumaa ji la nekk loolu mooy premier liggéey bi deuxième liggéey bi mooy bi màggal Tuubaa jubsee kër Sëriñ Tuubaa gi ci nekk ci jumaa ji boobu moo nekkaat deuxième liggéey bi nga xam ne amoon na fa ay yàqu-yàqu lu jëm ci ay moustiquaire ak ay sellir ak ay ay porte yoo xam ne dañ ko doon réparé waat loolu moo nekkaat deuxième liggéey bi liggéey boobu nag liggéey kër Sëñ Touba bi moom lañ boole woon ak kër Sëñ Touba gi njëkk rek ñaari entretien yi bi loolu jàllee nag ci leen xalaataan ne buntu bàq yebee bee jot nañu yeesal ko ndax buntu ba it day nekk loo xam ne ni kenn ku ne am nga fa wàccuwaay muy lu am solo loo xam ne ni mbokk taal yi bépp fay jaar biñ xalaatee ba xam ne jot na it ci leen dajaloo ci daayira bi waxtaan suñu biir def budget xool la koy liggéey ñu mën koo jaayante wàcc defar ko ba buntu bi jaar yoon. wa rahmatullah man la Mass Mbow président organisateur ñoo ngi nuyu di jaare ñëpp di leen di leen wax ne atelier bi nga xam ne taxawal nañ ko fi benn atelier la waaye atelier bi dañ ko xaaj ñetti pàcc muy pàcc bi ci jëkk mooy ñuy découper bi ci topp mooy ñuy sàmbale bi ci topp mooy ñi xam dañuy def fraiseur mooy dañuy bën ñu place crochet bi noonu lañ def atlé bi atelier bi euh, ñaari koor de métier ñoo fi nekk mooy aluminium ak menuiserie métallique ñaari koor yooyu ñoo fi nekk ñooy ñoo ñoo composé atelier bi Euh, atlet bi tamit biñ ci biir biñ xaajaate ñetti pàcc yi tamit dañ koo xaajaat dix quinze groupes lañ ko xaajaat euh, quinze groupes yi dañuy ñeent quinze groupes yi ñu ñuy xaajaat mooy ñuy sàmbale ñu sàmbale quinze taabal lañ ñoo xamante ñëpp kenn ku ci ne da ngay sàmbale parce que loolu mooy tax ñu mën a gagner temps pour mën a defar quatre-vingt-cinq fenêtres yëpp ci benn journée loolu mooy mooy mooy suñu bëgg incha allah bëgg nañ balaa balaa balaa tàkkusaan euh, quatre-vingt-cinq fenêtres yëpp dana pare Et nous vous remercions de votre visite. Nous sommes le Daïra Khetmatul Khadim de Touba qui depuis euh, presque un an. Nous avons réalisé quelques petits euh, que la grande euh, la porte de Bakia. Et aujourd'hui, nous pour faire les fermetures de la grande bibliothèque de Daré Kamil, réalisée par le Daïra Khidmatul Khadim de Touba, qui, sur un montant de 85 fenêtres. Combien de salles Bon, je pense que c'est sept, sept grandes salles. Sept grandes et il y encore. Mais le nombre de fenêtres, c'est 85 fenêtres au total. Je ne peux pas vous le nombre de salles, mais ce que je que nous avons réalisé 85 fenêtres que nous avons fait de notre propre porte à porte. On a commencé aujourd'hui et on va terminer aujourd'hui, Inch'Allah. Ça dépend des autorités. Ça dépend S'ils veulent nous montrer quelque chose, on va réaliser ça. Ils nous donnent le travail et nous, on va réaliser. Alhamdulillah, شكرته لأنه قد ساقني لوطني بنبا ماقني وخادني إلي بتهني من بعد ما حساب بتهني وجعلني في إلى علومي والفوز بالعمل بالمعلوم summa salaatu bi salaamin tabia ala lazi xasiyana tabia ala lazi man bi muraadi iqtidaa fi sirri wal jaahi yakuunu al-muqtadaa huwa lazi ajara lil madiina bi amri rabbi fasaana diina wasilati li maliki rabii muhammadin xayril wara sabii waali wa saabi nujoomi alxaayiri nufoosi wa radiimi xasaawini yowma yaa waxaabu xayraka fi daarayni laa haabu wa innani yaa baru yaa kariimu daa'inu an shukrika laa ariimu wa innani yaa baru yaa kariimu daa'inu an shukrika laa ariimu منذ جذبتني إليك يا معين عناية منك إلي لتعين فغير متابا إليك من ذاك بك عليك ورديت عنك مفوضا مسلما إليك أمري مواجلا لما لديك ثم إليك لا إله سواك قد خبت لما لم أجد سرواك فجئت لي يوم بخير منني وخطني إلى اتباعي سنني من بعد ما كاد امتداح ناسي يدخلني في سرك الخنازي وقتل أبدائي والانترائي أزاد في طالبي وإقرائي وفي تعلم وفي تعليمي وفي افتخاري بالهدى المعلوم فقلت سا شكر وسا توسل بالمستوى سبيعي للسل وببنيني وبناتي معا ليسعوا في شريعا اجمعا يا بر يا غفور يا غليم إني أغفر تائب مليم يا بر يا غفور يا غليم إني خمر تائب مليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسر نائم أكول كاشتكيت كثرة الآفات وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأولني ملامين من كروم اليوم أنا كنا بمن أبوا لغيرك ربنا والمطيعك بنادي المستوى سنة البيضاء يا من سوى يا يا غابر اضرب يا قريب إني عبيد الله لا غريب يا بشاكم يا إخواني الجميع سعادة الدارين حقا يا سميع حبلي في أنسى دعاء إجابة بالمستوى ولا آل وسابة حبلي خير القسمة في المقاتل ولي سوي ديني بجاه القاسم حبلي خير الخدمة بالمقال ولي سوي ديني بجاه القاسم ولي سفر ليلة غرابي ما بحرمة المحبوب إبراهيم ولي يسوق خير حلال طيب وخير الجيران بهم الطيب وتقني في باطن وزاري وارحم بي الخلق بأقطاعي وراقني ترقية خفية ببنتي رقية سفية وقي أزايا أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا بزينبا وقي أزايا أقربا وأجنبا ومسلما وقابلا بزينبا وامني بخير وسلاما بأم كلثوم إلى القيامة وامني بخير وسلاما بأم كلثوم إلى القيامة ولي يد الرب القادمة هناك فاستجب سؤالي وقل أنيسي واحمني من درر ونجني من اضطرار وقرر ونجني رد ولدار هنا وفي خط من الأقدار ونجني رد ولدار هنا وفي خط من الأقدار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 ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ابنا حبيبي جاه من هو المختار دنيا وأخرى خير مختار وجه الإجابة بيننا وبين كل أذان والتكفي عن علينا وجه الإجابة بيننا وبين كل أزايا والتقل على العينات يا لاوي يا نزير يا جليل يا لاوي يا نزير يا جليل إن يقين المغضب الذليل فلتغرني بكرم العرب من على فلتغنني بك وهب لي يا رب بمن على جملة مطمئن وهلب سيدنا